mu ngi noonu mbokki internet du Sénégal gannaaw bañ leen nuyoo jaajëfal leen ci topp gi ngeen ñuy topp à chaque fois ci information yi ñu leen di jox te nag dañ dalal benn jeune boo xamante ni un jeune dynamique un jeune responsable d'ailleurs sax loola waral ñu def ko responsable euh, euh, ci commune bi nga xamante ni moom mooy Mermoz Sacré-Cœur mu nekk di def liggéey boo xamante ni euh, ñëpp rafetlu nañ ko ci commune bi nga xamante ni mi ngi fi muy Mouhamed Gaye Mouhamed dañ lay bàyyi nga nuyu mbokki internet yi nga xamante ni ñu ngi lay seetaan waaw maa ngi lay nuyu Euh, di nuyu internet yi nga xam ne ñu ngi seetaan à travers euh, seen chaîne Allô Sénégal di nuyu également équipe bi nga xam ne moom nga àndal ñëpp di la remercier aussi si invitation bi. mi ngi noonu Mouhamed jërëjëf waaye dañ gis ni étant jeune ñu gis la nga nekk euh, en plus responsable ci bu. parti politique bi nga xamante ni moom la responsable des jeunes ci parti réew mi waaye tamit nekk ak responsable tamit ci ah, Benno Bokk Yaakaar waa APR ñu gis élection yi passé nga liggéey ak ki ki naan Abdoulaye Diouf Sarr nga liggéey ak moom ci wàllum communication liggéey bu mucc ayib est-ce que mën nga ñu dikkal tuuti balaa ñuy commencé rek ci sa diggante ak kooku ñu naan Abdoulaye Diouf Sarr. waaw xam nga Lamine euh, bu ñu nee Abdoulaye Diouf Sarr mën nañ ne ba Diatara mën nañ ne Moustapha Niass mën nañ ne keneen a keneen parce que. coalition Benno Bokk Yaakaar la. Mhm. donc naturellement euh, bu kenn ku nga xam ne dafa soxla daf ñu soxla ci liggéey. Mhm. dañuy daal di bàyyi suñu lépp ànd ak moom liggéey. Mhm. donc loolu moo indi par exemple suñu euh, relation ak moom mu nekk tamit nit koo xam ne ku baax la ku ouvert d'esprit. un leader euh, boo xam ni kenn du ko dootu ko naatable donc ñu liggéey ak moom ci wàllu communication ci élection locale yi donc en même temps aussi ñu am ay relations yu continue jusqu'à liggéey boobu noonu moom moo tax sénégalais yu bëri xam la ci wàllum communication est-ce que yow euh, am nga dëgg-dëgg satisfaction ci liggéey boobu nga ko defaloon yow. waaw bien évidemment parce que xam nga liggéey bu nekk boo ko paree nga jot si ay ngërëm jot si ay félicitations. da ngay mhm. daal di sant suñu borom. xam mhm. ni également euh, lu ñu ci doon wut rek am nañ ko. nag mhm. suñu borom nag li ci des moom ci loo xam la la nekk waaw. <laughs> mi ngi noonu xam naa du mën a wax lépp waaye dañuy dikk rek ci euh, actualité politique. parce que yàggul dara gis nañ ne remaniement bi nga xamante ni am na sa wàll gis nga benn changement boo xamante ni sa benn candidat nommé nañ ko muy euh, Yankhoba Diattara nommé nañ ko ministre du sport. Mm-hmm. sa jàngat en général nan nga gisee remaniement bi. ah bon remaniement bi dama ko dama koy gisee comme étant une continuité. Mm. parce que Yankhoba Diattara aussi c'était un ministre de l'économie numérique et des télécommunications. Mm-hmm. donc sur la confiance du président de la République Macky mm-hmm. mu jël ko nommé ko au département des sports donc jàngat bi évidemment euh, expérience la vécu la xam-xam la. mais est-ce boobu bett na la yow. waaw mën na ma bett mën na ma bañ a bett. Mhm. Euh, bett bi ci ñu ma koy mën a expliquer mooy euh, mi ngi doon def liggéey bu extraordinaire au niveau du numérique. Mhm. bon peut-être que président Macky Sall mënoon na ko bàyyi mu continuer di. Euh, def ay exploit ci monde numérique. Mhm. mais en même temps bettu ma parce que xam naa ni département des sports bi ñu ko yóbbu. Mhm. mën na fa def lu raw lu mu defoon numérique te mën na fa def lu raw aussi lu prédécesseur bi deful foofu. ah parce que nomination bi fi ñu ko fekk fi ñu ko fi ñu ko mën naa ni baar bi dafa kawe parce que ki fi nekkoon. liggéey na fi liggéey boo xam ne sénégalais yëpp rafetlu nañ ko ba bi ñu ko jëlee indi ki ki ñu naan jatara am na ñoo xamante ni il se la question lan moo tax changement boobu noonu est-ce que gis nga ni Yankhoba Diattara apte na pour def loo xamante ni euh, mën na supérieur ak euh, li fi ki jógee ki jógee li fi ki jógee def muy Matar Sa Matar Ba. waaw bien évidemment parce que xam nga aujourd'hui il faut comprendre d'abord benn affaire. waaw mooy euh, président de la République. fii jeunes sénégalais yi toll ci sport. Mhm. je pense que dina def lu ne. Mhm. ba mu des ba mu des juum ci ki mu koy dénk. waaw loolu mooy il faut qu'on soit d'accord là-dessus. waaw jël nañ coupe d'Afrique. Mhm. qualifié nañ coupe bu yokkul ci lim ñi ngi koy dénk mhm. du ko daal di wàññi waaw en même temps euh, ki fi jógee mi Matar Ba ñu koy féliciter mhm. parce que c'est un leader def na fi liggéey bu mucc ayib mhm. même bu dee am na ñu naan des nag desul ñun nañu reconnaître ni il a fait beaucoup euh, beaucoup dans le monde du sport mais également il faut comprendre que Yankoba Diatara aussi c'est mmh. un c'est un jeune Matar Ba moom ak Yankoba Diatara hmm? waaw il faut que ñu xam loolu l'autre chose mooy euh, ku ci mel ni par exemple Matar Ba. Euh, bi mu amee bac il a il dafa dem université def géographie après mu nekk professeur en instruction civique. Mm-hmm. Yankoba Diatta bi mu amee bac mu dem mm-hmm. université am DEA diplôme des études approfondies. Mm-hmm. en droit privé après mu dem Canada am euh, MBA en administration. ak euh, j'en passe. donc ñoom ñaañu boo xoolee seen formation naturellement nekkul formation sportive. mais nag après ku ci nekk da nga dem ci sa gox sa dëkkuwaay intégrer le monde sport. Matar Ba nekk na président on ONCAV de 2008 je pense à 2011 Fatick nekk fi arbitre je pense et cetera. Mm. Yanko Ouattara aussi à Thiès il a été parrain de l'ONCAV pendant vingt ans. nekk loolu sénégalais yu bëri xamuñ ko. voilà donc nekk président d'honneur aussi au niveau de de RAI FC. Mm-hmm. en même temps parrain d'honneur dans cette académie après ñu tuddee ko ay lamb mu nekk dans le monde sportif. Mm-hmm. ba récemment rek match bu ñu doon football ñun entre les jeunes il était présent boobu nomination bi amagul. Mhm. donc yu su bëri euh, daanaka méngale am na ci lu ñu lu mu méngaleeg euh, vécu sportif. Mhm. ak Mactar. Mhm. bu dee aussi tamit ëppalewu ko ci. il faut aussi sénégalais ñu comprendre loolu ci xamee ko noonu. mi ngi noonu tracé na euh, vécu ki nga xamante ni moom mooy Yankoba Diatara ñu bëri xam na xam na bi ñu déggee nomination bi ñu doon wax lan moo tax ñu yóbbu ko foofu noonu bu ngeen déggee tey leeral yi nga xamante ni Mouhamed Gueye indi na ko di ngeen comprendre le pourquoi parce que Matar nekk parce que Yankoba nekkul ko xamante ni dafa dafa jóge ci euh, communication rek ñu yóbbu ko sport mu doon monde bu bees ci moom nekk na koo xamante ni yàgg na na liggéey ci wàllu sport ci suuf mi ngi noonu waaye gis nañ ni liggéey nga ak Diouf Sarr tey est-ce que pare nga liggéey ak Yankoba Diatara lu raw ni nga liggéey ak Diouf Sarr ba mu gis ci boppam ci wàllu sport. non Yankhoba Diattara Lamine moo jiitu Abdoulaye Diouf Sarr parce que mm. bu ñu nekkee au niveau du parti Rewmi depuis bi ñu fondee fondé réew mi mm. donc Yankhoba Diattara ñu képp ñëpp xam ko ci loyauté maanaam euh, fu président Idrissa Seck dugg foofu lay dugg fu mu génn foofu lay génn lu mu ko wax loolu lay def mu nekk kilifaam mm-hmm. donc loolu moo jiitu euh, liggéey bi nga xam ne am nañ ko beneen ministre don lépp lu ñu mën a am c'est la famille naturelle d'abord. Mhm. avant ñuy xool beneen beneen entité. d'accord voilà. mais nan ngeen dundee critiques yi parce que bi ñu ko doog a nominé du ñàkk sénégalais noonu la mel dina amoon na ñoo xam ne critiqué nañ ko ci milieu boobu noonu nga xam ci wa cër googu nga xam ne président de la jox na ko muy ministre du sport nan nga dundee woon critiques yi. bah on l'a vécu naturellement avec toute objectivité parce que xam nga aujourd'hui mhm. Sénégal dañuy dem sous le coup de l'émotion. Mhm. tey euh, man bu ñu falee sama leader damay kontaan bu ñu ko wàccee damay mer. mais il faut ñu bàyyi xel ñun ñëpp ñoo bokk benn Sénégal c'est-à-dire coupe d'Afrique bi du man maa ko moom du Yankoba Diattara du Macky Sall du keneen keneen ñun ñëpp mhm. aussi il faut comprendre que euh, critique daf lay yokk doole daf lay yokk jom mhm. peut-être aussi ñu doon critiquer xamuñu exactement euh, liñ fi liñ liñ fi jëlee ak liñ fi bàyyi parce que état continuité la donc mën nañ critiquer sous le coup de mais après mhm. bu dekkee da nga def gëstu nga def jàngat nga def xam-xam li nga xam ne carrément même bu changement amee c'est vrai que dina am ñu nga xam ni du leen neex. Mhm. mais da nga xam aussi ni ki fi nekk. mën mhm. na def peut-être lu raw li nga xam ne ki fi nekkoon def na ko. d'accord donc euh, naturellement ñu jëlee critique comme ni ñu koy comme ñu jëlee ko comme lu baax. Mhm. parce que nit aussi il faut nga nangu ñu lay critiquer. ndax ci critique yooyu noonu ci ngay jàngat ba mën a am évolution ci sa ci sa doxalin. ci critique yooyu ci ngay jàngat parce que du ñàkk comme ni mu ko waxee sénégalais noonu la mel chaque fois bu changement amee rek critique dafay am. du ñëpp ñoom ñooy d'accord ci euh, changement boobu noonu. Mm. dëgg la mais est-ce que euh, ki nga xamante ni moom mooy euh, ki gis nañ tamit sortie bi nga xamante ni Matar Ba def na ko mu ni Abdoulaye mu ni Yankhoba Diattara mën na def. lu xam ne lu raw la lu Matar Ba def. Mm. sorti boobu nan nga ko jàngatee Matar Ba bi mu génnee wax loolu noonu. nga xam ne Matar Ba moom moo nekkoon ministre du sport ñu jëlee ko fi mu rafet lu jëlee bi ñu ko fi jëlee ne ki ñu fi teg am na yaakaar ni dina fi dina relever baar bi. waaw mooy li ma la wax rek xam nga ñoom ñaar c'est vingt ans et quelques de compagn de compagnonnage. Mm. dans le monde sportif. donc Yankoba Diattara dafa moog Matar Ba maanaam ay tofa lañ tofa mooy ñu toppante. donc aujourd'hui Matar Ba su bu nee choix bi président Macky Sall def. ci ba Diatara pour hmm. ministre des sports boobu mooy meilleur choix maanaam Macky Sall euh, des jeunes qui sont dans dans dans dans dans l'attelage gouvernemental hmm. a des jeunes ministres qui sont ñi nga xam ne ils sont proches de la jeunesse hmm. mais boo gisee tey choix bi Macky ko c'est peut-être am na su am na ay fondements yu nga xam ni moom la euh, jàngat Mhm. ci Yankoba Diattara ba jox ko ko. Mhm. donc meilleur choix bi nga xam ne Macky Sall moom la def pour succession euh, Matar Ba donc Yankoba Diattara la. Mhm. c' est un ministre qui est proche de la jeunesse c' est quelqu'un qui s'est investi dans le monde du sport. Euh, récemment euh, bi mu nekkee numérique en tant que maire parrainé nañ ko ay ay match de football ay tudde nañ ko ay lamb. en tant que président du conseil départemental de Thiès. il était dans le monde du sport. en tant que ministre numérique il était dans le monde du sport en même temps ba tey xam loolu tax tax tey ñu am euh, yaakaar ni ba pare di ko ñaanal yàlla may kon ndam ci mission bi nga xam ne nii moom lañ ko moom lañ ko dénk mi ngi noonu waaye est-ce que am na benn conseil boo xamante ni tey boo dakkaloo nag ak Yankoba Diattara di nga ko jox ci milieu boobu noonu surtout sport buñ ko waxee jeune lañu wax te ba gis nañ ni jeune la yow tamit jeune nga mën nga taxaw en tant que jeune waxtaan ak moom waaw effectivement loolu day am c'est naturellement mais du man dong sax ñooy may waxtaan ak moom parce que dafa nekk nit boo xam ne nii mhm. xeebul kenn et que il est tellement ouvert d'esprit mhm. que bi ñu bi mu faloo ba tey ah ñu ngi ci peut-être un mois après sa nomination def na tour fédération yi peut-être à quatre-vingt-dix pour cent fédération sportive yi un mois lañ ko mais fédération yëpp dem na leen seeti ñëpp wax nañ ko seen i gis-gis ak seen i jàngat. Mm-hmm. te ba fi ñu toll nii commencé na posé ay acte jëmale ci semaine bi passé dafa demoon Qatar donc il est rentré dimanche. Mm-hmm. demoon Qatar pour euh, maanaam def prospection xam joueurs yi bu ñu ñëwee si yan condition la ñu nekk. Mm-hmm. xam presse sportive bu ñu ñëwee si yan condition la ñu nekk xam supporter bu ñu ñëwee si la ñu nekk. donc je pense qu'aujourd'hui euh, ku am conseil dëgg-dëgg moom mooy doxalee noonu. Mm-hmm. te moom boo xoolee mi ngi def na tuuru seeti na kilifa yi. Mm-hmm. ku ci mel ni euh, euh, El Hadj mbay mm-hmm. ku ci mel ni Gaston Meng. ku ci mel ni euh, ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne mën naa leen lim. donc foofu boo fa demee rek parce que da nga dem pour. sàkku euh, conseil sàkku xam-xam mhm. ba pare sàkku ñaan aussi ñu ñu mën mën la jàppale si mission mi ngi noonu Yankhoba a nekk na koo xamante ni euh, biñ ko biñ ko nomination bi mu amee rek mën nañ ni ci le lendemain a commencé liggéeyam mhm. à un mois presque un mois seulement ci nomination mu def tuuru Sénégal def dem ba Qatar euh, xool conditions yi nga xamante ni suñu joueurs yi mën nañ faa nekkee ak yeneen yéen gisoo ni liggéey bi mu def pour le moment liggéey bu mucc ayib que Euh, Qatar bi des na mais dem na foofu noonu xool jour bu ñu ñëwee yan condition lañu nekk presse sportive bu ñëwee yan condition lañu nekk gisoo ni liggéey bi jëlee na ko doole. waaw du question jëlee doole xam nga comme ni nga ko waxee c'est un jeune. te tey nit bu ñu la wóoloo jox la euh, yenn mission yi pour nga gérer ko. je pense que loo ci def doyul. gëm naa ni diggante un mois su mënoon def leneen. ak hmm. leneen leneen dina ko def te xëy na aussi sax am na yoo nga xam ne def na ko te man yëguma ko. wala peut-être euh, presse bi yëguñu ko. Hmm. mais xam naa ne daal c'est un très grand leader. Hmm. parce que xam nga ne tey ku jaar si loxo Idrissa Seck. Hmm. leader da nga mën nekk. c'est un très grand leader en même temps euh, ku am expérience la. ku am xam-xam la ku am euh, connaissance ci service public bi la. en même temps. au niveau national rawatina Thiès. mu ci nekk koo xam ne il s'est investi dans dans dans la jeunesse dans le sport donc jàpp naa ni. lu mu def rek def c'est parce que loolu la war a def te xam naa ni moom dina def ba def lu nga xam ni moo raw kàttanam ndax Sénégal ak sport bi nga xam ne mu lañ ko nekk jaral na ak ni nga tracé parcours am ku dégg ni nga tracé parcours am xam ni yàgg nga ànd ak moom moom tamit maîtriser nu monde sportif bi waaye Mouhamed est-ce que yow sa côté bi nga nekk côté communication ci Yankhoba Diattara fan la toll waaw ñu ngi communiquer parce que yow Lamine tu dans la presse. Eh. donc war nga xam ne demoon na Qatar. peut-être mm-hmm. information yi ma lay jox aussi yow xam nga ko. Mm-hmm. ñu ngi liggéey ci communication parce que xam nga aujourd'hui li li tax. Euh, euh, parce que yéen tamit da ngeen a ñeme ay innovation waaw mais c'est normal parce que ci monde bi ñu nekk la. xam nga tey dañu dem ba nga xam ni il faut ngay innover parce que boo fi doon def li nga xam ni ñeneen dañ ko doon def. Mm-hmm. je pense que du boo ñëwee. nga nga indi lu bees nga créer lu bees mm-hmm. mais toujours nga rester dans la dynamique de la continuité mm-hmm. comprends nga donc aujourd'hui euh, su nekkee dafa jóge au ministère du numérique mu mm-hmm. xam le monde du numérique je pense que dina am tuuti euh, attachement ak le milieu du sport parce que numérique boo ko waxee da ngay laal département yëpp donc aujourd'hui loolu moo tax xëy na euh, communication bi di nit ñi di gis carrément que mi ngi def ay jéego ay ay effort yu jëm ci wàllu ci ci wàllu sport bi nga xam ne moom lañ ko dénk mu ngi noonu mu nekkoon euh, Mouhamed gay nekk responsable euh, fii ci commune bi nga xam ne moom lañ naan Mermoz Sacré-Cœur mën naa ni Sénégal ñu bari xam nañ ko ci liggéey bi nga xamante ni mi ngi koy def ci wàllum communication ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci milieu bi xam nañ liggéey bi nga xam ne def na ko mu nekk koo xam ne dafa ñeme innovation ñeme ñeme engagement ñeme ñeme tamit milieu bi nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla ñu mu képp kum liggéeyal ci autorité yi rafetlu nga liggéey bi muy liggéey muy Mouhamed lan nga ñu mën a wax yan conseil nga mën a wax jeunesse bi parce que gis nañu jeunesse bi ñu bëri euh, peut-être dañ naan je suis politique te xamuñu dëgg-dëgg lan mooy politique lan ngay wax jeunesse boobu noonu parce que gis nañ ni à bas âge nga dugg ci politique te booba léegi tànki kanam rek nga ci gis bon Lamine il faut que aussi qu'on soit un peu démocrate xam nga démocrate mooy da ngay nekk li nga doon mhm. keneen ki nga bàyyi ko li mu doon mhm. c'est-à-dire que même si un jeune mën na nekk a politique mais taxul mi ngi servir sa nation si jeune mun nga nekk apolitique hmm. taxul bu élection jotee da ngay dem nga voté hmm. parce que di nga nekk apolitique mais di nga jàngat di nga nekk apolitique mais di nga dugg sa page nga commenté jox wax sa xalaat hmm. donc jeunes yi lu ma leen di conseillé daal en tant que jeune mooy nañu xam suñu bopp déglu am kilifa déglu suñuy waajur xam ni euh, ay ndaw lañ te bëgg nañ egg fenn ëllëg donc ci kaw loolu ñu daal di euh, bàyyi xel ni ay ndaw lañ te ndaw mooy avenir u dëkk loolu mooy conseil bi nga xamante ne suñu invité tey di Mouhamed Gueye jox na ko jeunesse réew mi nañu bàyyi xel même boo nekkee koo xamante ne tu es apolitique boo duggee commentaire wax loo xamante ne dafay jëmale sa kanam sa réew mën nga apolitique ba pare di contribuer au développement ci sa ci sa gox ci sa localité mi ngi noonu Mouhamed dañ lay bàyyi rek nga wax sa dernier moom waaw Lamine maa ngi lay euh, remercier ci invitation bi. di euh, wax ni euh, tey suñu débat xam naa dañ ko centré woon ci euh, le nouveau ministre des mhm. sports boo Diattara mhm. ñu koy am nañ yaakaar ci moom mhm. ndax booy ànd ak nit mu am xam-xam nga ne ni gis investissement yi nga xam ni def na ko dans le monde du sport en tant que opposant ba tey pendant vingt ans dans l'opposition ngay def ay jéego ci wàllu sport tey nga nekk dans le pouvoir ju dénk la ko gëm naa ni jéego yi dafay gën a yokk donc ñu koy ñaanal yàlla si échéance yi mu jëm futur ak mission bi nga xam ni euh, sur la confiance du président Macky Sall dénk na ko ko mu dal di am ndam bu kawe njortam di la remercier yow di remercier équipe bi nga xam ne moom nga àndal di wax ne rek nañu àndandoo booloo parce que Sénégal ñëpp ñoo ko bokk. mi ngi noonu ñu amoon entretien ak ki nga xamante moom mooy Mouhamed gay nekk responsable politique fii nga xamante ni moom mooy euh, commune bu Mermoz Sacré-Cœur ñu lay jaajëfal di la wax tamit euh, kontaan nañ ci euh, invitation bi nga répondre mi ngi noonu peut-être tamit ñu bari xam nañ la ci milieu bi voilà dootuñu la présenter sax la ñuy wax ci ñi nga xamante ñoom ñoo ñoom ñoo xam wàllum communication ah mi ngi noonu moo ko internet Sénégal tey li leen indi loon àndoon ak Mouhamed mi ngi noonu jërë ngeen jëf